jafe yi askan wi di jànkuwanteel te mu tukkee ko ci mbënn mi ci dëkk bu sell bi di Touba doon loo xam ne dafa soxal lool ñii di kilifa yi ngànk liggéey bi nu mel loole nag sabablu ak doxuk nemmeeku ñu amaloon ko ci bërëb yi nga xam ne fala askan wi di jànkuwanteel ki jafe-jafe bokk na ci li ko gën a sabablu dal di xool liggéey bi nga xam ne moom lañu fa tàmbali tolluwaay ga. ndax bu ngeen amee fàttaliku. fan yee ñu génn am na ci ay réunion yu ñu teniroon donc benn réunion boo xamante ni bii ci CLD inondation la ci laa annoncé woon na leen nawet bii di dinañ fexe ba mettre en place li ñuy wax benn quartier général. quartier général nag mooy ñi ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci dëkk bi te euh, assainissement doon seen yitte ñuy àndandoo di constaté ndoo li nga xamante ni jot nañ ko fee liggéey waaye tamit. bu yàlla dogalee inondation am ñu mën di mutualiser maanaam di lëkkale suñu doole looloo tax tey visite bi sax jàppoon nañ ko ca ginnaaw waaye dafa amoon ay xat-xat moo tax mënuñu ko woon def. ginnaaw visite bi nu mel yenn sooxe ñu nemmeeku ko foofu foofule ca ndaamaatu loole nag sabablu ba kilifa taxaw temm ngir nag daal di ciy wut saafara ba askan wi mën a mucc ci jafe-jafe yi ñuy wanteel ñëpp xam nañ ne waa ndaamaatu at bu jot seen voirie boobu daanaka ay at a ngi ni kenn jaaru fa donc ñoom tey ñu doon euh, jël seen responsabilité ñëw ne dañu koy defar ñu leen si sant bu baax a baax a baax lëkkaloo ci ak Ageroute mu amoon benn jafe-jafe bu ndaw rek boo xamante ni bi ñoom seen diggante wala ak CSE parce que dañoo constaté ak taw bu njëkk bi ne dafa am ndox moo xamante ni bi jéggeegul tali Promoville bi loolu nag biñ si waxtaanee ak waa CSE tënk nañ ne ne ki nga xamante ni mooy liggéeyloo CSE muy Promoville dinañ jokkoo ak pour que ñu autoriser ñu ñu def loolu. la commission assainissement bu commune bu Touba dal dinay bokk ci visite bi nu mel Serigne Cheikh Abdou Mbacké di rafetlu tolluwaayu liggéey bi nu mel. ginnaaw bu ñu rafetloo nag jéego yi nga xam ne état def na ko ko ci ak ONAS mooy améliorer bu a baax wàllu assainissement bi ndax déficit Euh, ñu ngi rafetlu jéego yi nga xam ne mairie taxawal na ko dafa fas yéene accompagner liggéey yooyu te li ciy wàllam itam mu fas yéene dara bañ cee manqué euh, nekki noonu itam tubaa ca kanam gis ngeen ko mi ngi ci ndaamaatu dafa liggéey liggéey bu am solo jëm ci wàllu assainissement ak route ak yeneen i barab moom itam mbir mi daal ak lëkkaloo la goo xam ne nii ñi ko seq ñëpp faw ñu di ko coordonné àndandoo ko ngir mu mën a jëm kanam. ci fàttali rek saa sunu tollee ci jamonoy nawet askan wi féete ci dëkk bu sell di Touba daanu jànkuwanteel ki jafe-jafe ci wàllu mbënd mi rawatina nag sunu tolloo ci jamonoy màggal loole nag taxawaay gu mucc ayib jëmale ko ci saytu wàllu ndox mi nu mel dafay doon loo xam ne dina tax ba askan wi seen xel mën a dal saa sunu tollee ci